di ñu jar respecté jox leen dëgg ku siiw ñoom la foo toll ñoom la ak mu nit mën a mel rek ñoom la kon ñu ngi leen di gërëm encore une fois di leen remercier ci bi xam ne moom ngeen teew on est fier de la waaw sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaanal suma papa bi jiitu yàlla yërëm ko xaree ko aljana moo ñu fa fekk ñëpp comme nu ko père Bekay waxee di ñaanal aussi suñu père Balla Gaye xam ne làmb ñàkk te làmb yëpp ko bokkoon di ko ñaanal moom it fu mu jëm gënal ko fi mu jógee suñu waajur des fi yàlla may leen gudd fan ak wér bàyyi leen suñu kanam ba suñu yéene ci ñoom yàlla mottali ko waaye di nuyu d' abord journalistes yi fi teew yëpp parce que père Bekay wax na ko. te loolu la ñëpp remarqué wax dëgg yàlla caméra yi ma fi gis yëpp de est-ce que mos naa dugg ci plateau gis ko macha allah leen wax namoon naa leen lool xam naa it namoon ngeen ma waaye yi fi jaar yu bari moo taxoon jotaay yu mel ni mënul am di sant yàlla nag ba ñu dem ba affaire yi reprendre di wax nag amul naagu Covid ñëw na fii xam yàlla di ñu dimbali ak suñu médecins yu xarañ ba tey ñuy wax mu ngi waaj jeex waaye tant ñoo ngi dégg benn cas. bu ñu naagu dañuy jël masir barrière yi toujours di wax tamit dafa am lu fa xew encore muy mbëkk mi waaye suñuy rakk suñuy mag jeune Sénégal yu bari des si ñooñu ñoo leen di ñaanal yàlla xare leen àjjana parce que ñoom ku ci ne ba ngay jógee teraanga moo la taxoon jóg jàppale say waajur waaye tamit dafa am lu ci am parce que am na li nga xam ne bu demee bañ koy méngale du xaru parce que ñi dem teraanga moo leen tax jóg comme ni ma ko waxee mais li ñuy dem bay méngale xaw rek lu cata lu jara xolaat la métti na waaye ñu ci am responsabilité dafa bari benn yi parents yi am na ci responsabilité muy nañu bàyyi xam nga jeune chaque jour yi nga xam ni dañuy ne ci kër xam nga amoo njëriñ sa morom nii sa morom naa sa morom ne la mën na pousser ci jeunes yi ñu dugg ci li nga xam ne waruñ ci dugg que ku ne xam na ni dem ci gaal ay millions kilomètres loolu c'est risqué. yooyu waajur yi am nañ ci responsabilité nañ ñu wàññi parce que képp kuy mag ku ne isam la tekki teral say waajur teral sa bopp moo la tax a jóg mais waajur yi nañu bàyyi xale yi ñuy wax yooyu moo leen tax dugg ci yu bare bare état bi tamit góor góorlu góor góorlu ci emploi jeunesse bi parce que jeune mooy yor réew ëllëg dañ ci war a taxaw xam nga xoolal leen ay liggéey am na ñu fi yor seen liggéey amuñu sax fu ñu ko defee tey yu bari loolu dañ leen ñaaxaat état bi lu ñu doon def ñu góor góorlu ci bu baax ba jeunes yi am fii liggéey puisque juddoo fii màggee fii tekkee fii am na xam ñoo fii fii la ñu nekk mosuñu dem réew ku dem bitim réew lu bari bari ñoom ñoo lay wecci kon tey juddoo fii màggee fii tekkee fi am na waaye ku nekk fu yàlla dogalee sa sa sa sa sa sa tedd ñu bàyyi ko xel xam nga yenn risques yi c'est metti na trop trop di di wax encore di wax waaye jeunesse bi encore toujours rek parce que xam nga tey ñun fii la ñu nekk dogal na isam la ñoo ngi dem bitim réew tukki te pourtant tukki am na ñi nga xam ne dañuy tukki mais lu métti métti métti lañu daj sadar du boo tukkiwul rek sa dara du baax nañu isam la tubay yi xam nga lu ñu yor fii lu mu ndaw ndaw gis ñoo ci góorgóorlu ba dajale ay millions wala ay cinq cent mille di ci passé gaal loolu loo ci def liggéey ci fii mu nekk dara mu nekk dara ba tax na xamoon nañu bàyyiwaat xel gën góor góor bu baax di ñaar encore ñu jiitu yàlla yërëm leen xale leen àjjana xam seen waajur yi fi des yàlla taxawu leen ba bëgg-bëgg yooyu ndaw yi amoon ci defal leen yàlla wuutal leen leneen

père encore di ko jaale waa Guédiawaye yëpp di ko jaale lamb di ko jaale Balla Gaye numéro 2 xam nga demoon naa fa ak doomu Youssou Ndour di ko jaale Sénégal après ñu xaar question yi di nuyu d' xam nga waaye saaf ak ak suma xarit yi ma àndal ak ak ñëpp ñuy seetaan partout le monde ñu ngi leen nuyu bu baax baax di sant. kon mbokk yi léegi dañuy tudd question yi bind nañu journaliste yi nga xam ñoo wax mais bind bàyyi naa ko ñun ñooñu ñëpp ñu lay wax fii la ñuy tax ndax am na question yoo xam ne sax doo posé wu bu ñu posé sa question toog xam ni posé na moom sa question parce que question yi yu ci bari ñoo ñu ko moom ñoo wax ñoo ñu ko posé. waaw da ngay mën a question ki ngay teel a soxla yi daal jërëjëf mbokk yi ñoo ngi di leen ziar ñu yëkkatee rek fii moo la daal di leen yàlla père Balla Gaye di ñaan yàlla xaral ko àjjana waaye bëri démb famille famille Seck bi nga xam ne day wër làmb ji ñàkk seen doom di ñu wax ko Seck ci Grand Dakar moom itam ñu ngi ko jaale di ñaan yàlla xaral ko àjjana di jël jaale

amaa keroog bi mu duggee parcelle daal Papa Sow bi ko sama doomu Mor Mbaye déggee micro dana ko daan naa Papa waaye xiir bi am na a dal Mawal dama xiir bi a ko moom moom xiir bi dana ko dal ñu laajal ko ci beneen ITV mu ne man Mawal doo ko ñu màggatoon bay doxee ay béy su ma daje woon ak moom dinaa toog ay béykam sànni ko foog samay béykat sànni ko bëri na kon ndox dafa mel ni que. bëre ak yow lu mu yàgg def ci bopp bi est-ce que jàpp nga ni que noonu mu ko def ci bopp amaan est-ce que mënul relever le bi dox sa diggante yow la jërëjëf. waaw buur dama defoon de affaire yi moom jarul yàkkamti naan seetu asamaan jarul boo ko am yeneen jotaay yi nga xam ni man ak moom lay doon tey boobaa la baat ak tontu di gën a neex. waaye yóbbante galgal ubbu làmb waaw muy taxaw fële wax ma koy tontu ah, bariwul njëriñ pour man man dama nekk ci sama yoon comme lu père Bekaay wax yàlla du ñu dimbali ba suñu début tey fukki personne yoo taalal micro huit yi boo leen ne Modou Lo roi des arènes ñu ni mënul nekk yàlla di ñu dimbali di ñu dimbali ba yàlla defal ñu loolu ñu koy sant yàlla bu baax a baax ama waxu waxu mbër la wax rek waaw waaye xam na ni moom man duma ñeexu ñebe kenn wax nag yomb na waaye wax yomb na waaye dañ yàlla may tanak insha allah loolu moo mën a ñaan soobee yàlla merci waaw gars yi saa mu waroon am bruit bu bari sinon ñu dégg ni loolu la ñu wax question bi la moom loo maa ngi bu baax a baax bon man question bi may posé mooy làmb ñu seetloo révolution mi ngi tàmbali en deux mille six waaye bu ñu xoolee combat yi ci gën a ci gën a marquant ci suñu génération yooyu yaa ko bëree ak Balla Gaye ñëw te ci boobu la lamb révolutionné wu dox tax léegi boobu ay xale ngeen woon ay mag ñoo fi nekkoon dañuy dem ba génération boobu nekkoon ci suuf ñoom ñoo nekk ci kaw ñoom ñoo yor lamb te a sooxe tey jii yéen ñi nga xamante ni yéen a yo ci kaw rawatina yow nga xamante ni yaa yor borom war a jaar pour lamb fi nga xamante ne lu ko foofu la ko bëgg a quelle voisinage la la lutte comment faire pour a professionnaliser la lutte waaw waaw li ñuy wax chaque fois rek kenn bëggul mu jébbuloo mu réer sa loxo tey am na fu ñu fekkoon làmb ji mu am fu mu yegg si tey li may wax chaque fois nag lu ci bari lu ci bari nag noonu làmb koy wax. waaye làmb tey violence bu bari ñuy wax ci làmb ba lu ñuy wax lu bari wàññeeku ci woon du ci mbëri parce que li may wax chaque fois gis ñuy ñëw ci ay làmb di ñëw di indi ay ñaawteef ñooñu ñooy dem ci màggal yi ñooy dem ci gàmmo yi ñooy dem ci xew yu mag yëpp ñooñu ay yàqkat la yi nga xam ne yàkk moo leen tax a jóg chaque fois waaye man état bi lay lancé war rek appel deen wax li may wax chaque fois làmb suñu sport national li nga xam ne ñun ñoo tey ñëpp ci war a jàpp mais rawatina état nag ñi nga xam ni muy moyens yi muy lépp ñoom lañ ko dégg sant yàlla parce que ñoom doon wax arène nationale ñu defal ñu ko waaye dafa may accompagnement yu bëree bëri xam nga d'abord muy promoteurs yi ñu dooleel leen ñu dooleel leen gis na tey ku ci mel ne lig na ko laay ñaataat mu ngi tëgg ay gàllankoor yu ko dal bari na lépp lamb nattum la ñun ñëpp suñ nattu la rek lu ñu dal lu muy métti métti dañu ñëwaat puisque moom la ñu am mais état moo ñu war a moo war a accompagner promoteurs yi dooleel leen ba tax na tey li yëpp ci créer emploi la rek tey état bu gisee ki nga xam ne dafay créer emploi pour jeunesse bi war a jàppale loolu ñoom la waroon mais bu gisoon keneen ki nga xam ni day def loolu ñoom dañ ko war a appuyer ba tax na dañuy wax état jàppaat ci bu baax a baax a baax xam ma ñuy ñëw doole làmb ji ba fi ñu bëgg làmb yegg ko mu kawe sax foofu noonu parce que comme li may wax chaque fois bëgg naa man suñu jarbaat wala suñu rakk yi bu ñu ñëwee fekk ay kase 500 millions wala lu ko moo tax na loolu nag dafa laaj dafa laaj ñëpp jàpp ci ñëpp jàpp ci doole làmb fi ñu bëgg mu yegg fa mu yegg fa merci. jërëjëf mbokk yi mbokk yi si mooy Sëñ Afane ak jërëjëf di agent bu Modou Lo di ko nuyu baax a baax mbokk yi nag question yi ba tey Fall monsieur le ministre. waaw salaamaaleykum mbokk yi. sax du ma wax ay mbër supporter la maa ñoom famille la puisque chaque jour ñoo ngi demalante muy xew muy ngénte muy naqar lu am ñu ngi demalante ba tax na maa ñoom umpalewuñ ci dara man nag dafa am lu xaar parce que tey bu la yàlla dimbalee ba nga yor li nga xam ne ñëpp moom lañ soxla tey affaire bi dafay gën a sérieux lu mën a la mais dafay gën a sérieux ba tax na xam nañ dañuy xaar bu baax a baax a baax te ñoo ñoo ngi ci lu ñu war a nekk waaw yi gën a jàpp rek fépp fu nit nekk waaw di supporter mu loolu na nga yokk ñaan ba li ñu jëm incha allah defal ñu ci ndox mu sedd merci. Papa Lagui RFM. CNG bu bees bi moo yaakaar bi ministre am ci ñoom ba teg leen fii parce que am na li nga xam ni yaakaar naa ni ñoom ñoo ci ko gën a xam amaana ba ñuy nekk ci làmb ñu nekkul ci woon te ñoom yaakaar moo tax ñu teg leen fii gëm nañ ni incha allah dinañ yokk mbir mi te dañ ne ku yokk da ngaa wàññi te nag dañu ñëw xam am fu ñu fekk làmb tax na ñu ngi yaakaar ci ñoom bu baax a baax yóbbu affaire yi fi nga xam ni weesu na sax jot bi xam nga gën defaraat affaire yi ñëpp gis ci seen bopp. képp kuy nitu làmb daal gis ci boppam loolu la xaar si ñoom te yàlla leen ko yàlla yombalal incha allah waaye innovation comme li ma wax rek am na loolu xam a xam xam nga dèjà ma dégg ni wàññi nañu yokk nañu âge retraite bi xam nga ñoo ngi wàññi licence ak yooyu yooyu yëpp affaire yu maay segum mais daal ñu ngi daal affaire yi gën a ñoom daal incha allah ba ku nekk gis ci boobu. le doyen Abdou. Abu Ndour. Abu Ndour record. Abu na le. ñu ne Modou am na vingt victoire ñu ne Ama Baldé ñu ne am na treize victoire ñu ne Modou Lo na ak Balla Gaye 2 bëri na ak Eumeu Sène ak Bombardier ak Gris Bordeaux ak Lac Lac de Guiers 2 soo boolee VIP yi Sénégal benn Tapha Tine dong la la la la Modou Lo soo xoolee en terme de qualité adversaire Ama Baldé du ma ne dama ne waaye amuñu dayoo adversaire Modou Lo am ñu fa def interdiction daal ne Modou Lo palmarès boolewoo ko ak Ama Baldé Modou Lo adversaire boolewoo ko ak ak ak ak Ama Baldé waaye làmb ni demee dem ba mu Ama Baldé sës mu jël ko est-ce que Modou na ci raisonnement boobu merci beaucoup merci Amou <laughs> du sës parce que dafa am la nga xam ni man lu ma yàggoon bëgg la même ba may bëreeg kii nu mu tuddati bombardier. mu daan dama doon wax chaque fois su ma yàlla dimbalee ba ma jël roi des arènes damay wàcc ci suuf bëri xale yi parce que làmb ci yemul ci benn mbër ñaar ñetti mbër ñuy bëri suñu biir chaque fois que ñooñu mu lim tey daanaka ku nekk bëri naa see moom deux fois loolu làmb rek dañ war ubbi teel a bëri moo tax ñu def ñu mag ci làmb mais ñun ñëpp ay morom rek mën ak Ama Baldé ñëpp xam nga koo bëri ba pare loo xam ne làmb nawee la ko <laughs> ay morom ñun nga ma magee bu ma ko bu ma ko magee daal ñaar ci la yem xam nga ba tax na loolu man sama bëgg-bëgg la woon moo tax du ay sës sës ma ci ay jël kii wala jël kii parce que ma yàqamte yàlla la yaakaar lépp ci loxoom mais bëgg ubbi affaire yi affaire yi gën a yaatu loolu moo tax ma ne woon su ma yàlla dimbalee ba ma jël roi des arènes damay wàcc jël xale yi loolu la woon. Amady Diouf a ñëw. asalaamaaleykum wa rahmatulah keneen baax na moo ko faral di waxee nga xamante ni moo taxal si ñu ma nekk tey donc dëgg yoo par rapport ñu ma jël nit ko apporté na ñu ci moom yàlla yàlla yeesu ñu ma ci kawam jël ko te jege ko moo ma taxal ba tey ma nekk fi ma nekk yàlla ko yàlla ñu def ci yow par rapport ak ma sama bu baax baax moo loolu moo loolu suma question 4 février 2006 ama bari 9 novembre 2000 yaakaar naa ne soyo ci sëñ bi nga def ci Ahmad Subhanahu wa ta'ala génération 97 yow rek yaa ngi dugg daal ci ñaar sa génération 92 95 Modou Lo moo ci ñëw gën a jeex ñaar daan kenn kenn daan ko daan ci Boy Gaye 93 la ñëw ci làmb. Bombardier yaa ngi jaawale nat yi yaa ngi jaawale nat yi. Bombardier 90. bëggal deux bi. waaw waaw non non heure bi ñu ñëw ci làmb wax nga ko ci bëri. année bi ñu dugg ci làmb. kay heure bi ñu ñëw ci làmb. tey ñu ñëw ci làmb Demba Ka waaw tey deux mille quatre-vingt-dix la ñu bokk ci quatre-vingt-quinze moo tax ma ne ko génération quatre-vingt-treize ak quatre-vingt-quinze yàgg bëri ñaar daan ci kenn kenn daan génération quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit dañoo bëri teg ñaar daan daan daan daan daan moom ñaar kenn bu leen deux fois kon loolu yow rek yàq réussir ci sa ay morom moo gën bu leen di félicité bu baax a baax kon ma ne réussir yi sa tal moom loo xam ne nii kenn dañoo réussir ci ci wàcce macha allah. c'est quoi yaa amal bari ngeen jàpp ko c'est règlement de compte bi yéen moom règlement de compte bi bu ma ko waxee 4 euh, juillet 2009 ñu bari dañuy yaakaar ne ci boppam la ndax jàppuma ci boppam 4 février 2009 bi nga indee bàyyi ko amal bari jëlee jaar bi wala ngeen si ñu jëm yëpp la ñu wax yow rek yaa ko tax gis nañu loolu fekke nañu ko ko amal bari ñu teg biir droit yow la teg biir gauche

di la remercier ci loolu te ba ngay wax léegi père ba ngay da ngaa juum man ko dee juum kii ma woo ko de li wax xam na ku yàgg seetaan làmb la macha allah waaye di wax bëri na bu nekk ah ci làmb wax te nga bëri bëri indi gauche mu di droite wala noonu am na li nga xam ne duñ duñu gan xam duñu gan ci làmb waaw bëri nañ ci ku ne ñam nañ ci ku nekk kon ay Ama Baldé yooyu yooyu gëwuma ni daal ay pied gauche ak dinañ ci jaaxal te mu ngi wax yàgg nañoo tëggu te déedéet man mosuma tëgg Ama Baldé moom moo ko yàgg depuis combat bi mu di mu tëgg xam nga loolu na lool waaye nag doon na wut lu ya, mu ko lu nah, ya allah mu doon def ba ya, bis na ba allah mu doon def na ko dëggal loolu rek laay ñaan ko na ko na. ah da ko def rek d'abord loolu rek la ñuy ñaan yàlla <laughs> loolu rek la ñuy ñaan. ah, ah <laughs> nee nañ day membre ñëw de. day ñëw. ah waaye fas muy membre de laaw service lañ koy laawee. kuy ah. ñi ñiy bay wala wala ñi yor wala charretier yi war nañ ko xam fas muy membre laaw service lañ koy laawee du membre de day taxaw. merci. Babacar. le go. Babacar Sini Sarr mooy sànq journaliste yi ñooy toog ah Max Morom. ayca bismillah. ma jàmm ne sama boy la. maa ngi nuyu ñëpp nga xamante ne ñu ngi si à travers di leen wax di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk secrétaire ñu mën a ñu perte kay ñoom ñoom ñu dañaa jàpp ñu perte nuyu père Birame ak suma grand raay raay maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu nuyu xaalis le président waaw question bi daal léegi mën na di ko wax léegi xam nga ñu laaj léegi xam naa xam Ousmane dëgg Ousmane Ousmane dëgg Ousmane dëgg bëri ngeen yéen ñaar rakkam la moo tax li mu lay wax dafa yàgg dafa su solu kaani su solu kaani Ousmane waaw moom la rek bëri ngeen man Modou fi may mooy la fenn laaj bi su ko waxee fa taxaw nit yëpp ne Modou ak Ama ak ay nit lañu ay xarit lañu combat bi su ma jumul yow yaa dëkk déggoo ak promoteur bi ci li ñu gis ñu dem ba benn moment ñu dem ak Ama problème bi xaalis dafa dafa cent millions cent millions ba ñu xëyee xëy ne bi déggooyee nag ñu jox Ama Baldé xaalis ñu ne Modou jotul xaalis ma daje ak yow campagne naa defe naa laaj nañ ci loolu yow nga confirmé naa combat bi taxaw na ndax Modou day leeral ndax ko fi ñu koy waxee nii lii nii walaay jox na ko xaalis wala joxu ko xaalis. dafa taxaw ni en tant que rek ñu def koo xam ne xaritam la. ne ama engagé ndax ama su ne ñaan jàmm ak Sénégal merci. waaw defe naa nag lu ñu boole fii weesu nañu ay jot xaalis ak jotu xaalis lam bu taxaw moo tax ñu teew fii. kon tey ay jot xaalis ak jotul xaalis defe naa bariwu ci importance làmb ji taxaw na annonce bi tey mooy sama yëgle ci ñëpp parce comme boobu ba léegi ñu ngi wax taxaw naag taxawul ak lii am ak lii am na waaye sorte bi tey loolu moo waral point de presse bi ñëw leeral askan bi ñépp ñu doon am du leen wax làmb taxaw na taxaw na nag jeexal na woon Kata bu Bantamba TV. amul benn problème. loolu ko bëgg laay def. Thérèse maa ngi nuyu Afrika yi ñu ngi sant ñëpp ñu ngi presse bi ah. ñu ngi Modou. ñu ngi ñëpp laay ba wax ko ñu bu baax a baax. ñu ngi Bantamba ci ñun ak plan ak FM Sénégal. Modou question bi ma am mooy bu yàggul dara dañu tëj rek Modou ak Thérèse sax ñu ngi leen di doon comparé bu ñu deux cent kon vraiment nañu manque actuellement